bureau bi euh, service la boo xam mi ngi bànqaasoo ci ministère bi yore ko commerce ak PME yi nga xam dañ ko taxawal depuis 2004 ngir mu jàppale entreprise mu gëna ñongal seen liggéey lool nak bu fekkee moy mooy sa sas fépp foo xam ne ay entre dañ fa teew dañ faa war a donc bo xolé bokku na tay jii li tax ñu teew fi ci euh euh euh foire bi bu njëlalee suñu rëkkaloo ak chambre de commerce bokku na ci ñëw vraiment jakkalok entreprise yi nga xam ni ñëw nañ ngir gën leen a max mën a wax ñun li ñuy liggéey ak ban yor lañ mën a jaar pour mën a euh, jëfandikoo ci jumtukaay yooyu nga xam si ni bureau de mise en œuvre moo ko yor état jox ko ko waaye sant ko ni ko na ko jàllale ci entreprise yi. ci diwaanu Kaolack euh, euh, damay wax ni bureau bi mu exé ba daanaka ñu ngi concentré woon ci Dakar ak li ko wër ci entreprise yu mag yi mais depuis 2015 jox mandat ngir ñu gën a wàcc ci gox-goxaan yi njëkk benn commencé benn programme Casamance exécuté ko entre 2015 et 2017. mu am njëriñ ci entreprise gox yi Union européenne wat ñu jox ben programme sur quatre ans 2017 2018 ngir ñu jappalé anti yo xam ñu ngi dans la zone nord Matam ba Saint ba Louga zone sud Casamance ak zone sept est Tamba ak Kédougou njëriñ programme bi am fofu aussi tax wa GIZ coopération allemande mom ni li kat il faut ñu andi ko ci zone centre bi motax daw lañ commencé danaka intervenir ci zone centre bi ci façon bokk.

am pour acquérir équipement ak donc boo xoolee intervention bureau ci ñaari farn la la la le la sukkandiku accompagner entreprise investissement la war def su xam ñu xam acquérir investissement Nous avons lañ koy defee d' plan de mise à niveau une fois que les actions sont identifiées ñu accompagner ko ci banque pour banque lebal ko parce que dañ ko wax ni entreprise bi kat nii ak ni la tëddee li moy jafe-jafe li moy force am lii ak li suko amé dina yok comme koomam su baba banque bi xalam dina gën dal pour que mu accompagner entreprise bi mais yamuñu fofu yamuñu fofu parce que ci investissement yi dañuy paré pour delloowaat entreprise bi 40 pour li mu investir manam tej bu wara investir 100 millions dañuy paré pour délo ko 40 millions yi gratuitement bu fekkente ne réalisé na ba pare loolu mooy investissement matériel yi bu dee investissement immatériel nag kooku fa la gën a euh, apport gën a important yi parce que pare nañ pour delloo ko 70 pour cent supposons s'il a un plan boo xam 10 millions la bu war ci def formation am certificat pour mën a jaayee ci marché yu cher yi wala il mu am de gestion logiciel comptable su boobaa su waree coûter 10 millions ñun dañuy pare pour dox ko 7 millions yi. kon loolu jàppandal la boo xam dañ ko apporter entreprise yi moo tax ñun nañ ñëw tey ci foire bi gën leen koo leeralal parce que non seulement wax programme GIZ pour accompagner 50 entreprises nous ngi un programme ak mais am na beneen bu commencé tamit boo xam ñu de ci Proval pour accompagner 100 entreprises dans la zone centre et dans la zone sud. kon tey le bureau de mise à niveau mi ngi gën a dëgëral teewaayam ci gox-goxaan yi la zone centre bi nga xam si ni ku ne zone économique la zone où la. waaw ci koppar Takuna. Euh, Takuna, takku TAKUNA, dem na ci ay ay ay ay milliards bañ commencé ba parce le programme a commencé en 2014 à les l'Union accompagnée qui a pris 7 milliards. Comme nous l'avons dit, ça dépend de l'ANPIS. L'ANPIS, c'est un plan d'investissement, ni On a 5. Si 100 millions, nous avons pris 40 millions. 50 millions. Mais nous faits ne réalisent pas de nous savons en fonction du euh, projet de nous ci li ngay li ngay jot non lay tollu waye vous ci ratio plafonner xam koy aussi parce que vous dépasse 50 millions ci euh, prime pour les investissements euh, ci mise à niveau allégé